première finale première finale raw gaddu Elimane ak Ibou Diouf Elimane à gauche Ibou Diouf à demi-finale wala première finale lu lese raw gaddu arbitre sifflé na Elimane càmmoñ Ibou Diouf moom la ñu jàkkaarlool fi mu toll nii muy première première finale première finale raw gàddu Assane Ñing première finale raw gàddu Assane Ñing moo jàkkaarloo Papa Ndiaye. Assane Diouf moo féete na le. Elimane la nu jàkkaar lool. Assane Diouf moo ñu woon ginnaaw. Assane Diouf Elimane Gningue première finale raw gàddu première finale bu saison 2022 2023 ki njëkk am victoire ci saison 2022 2023 ki njëkk jël finale ci saison 2022 2023 diggante Elimane lay doon ak Assane Diouf Assane Diouf Elimane Assane Diouf Elimane Ñing Assane Diouf raw gaadu ba jël na tànk ba Elimane jël na tànk ba Elimane na ko daan na ko war na ko ndombo war na ko ndombo war na ko ndombo war na ko ndombo non na ko ndombo dafa ni zumel zumel na ko ndombo war na ko ndombo waaw baax na non c'est bon c'est bon waaw. arbitre joxe na avertissement Assane am nga avertissement sifflé waat na Elimane Assane Diouf Elimane ñi nga Assane Diouf première finale raw gàddu première finale de la saison 2022 2023 première gala bi tey la ki njëkk a jël ci atum 2022 2023 wala ci saison 2022 2023 mu ngi tukkee ci diggante Elimane ak Assane Diouf ku ci daan ku ci daan yaa njëkk cëru ci saison bi ndeysaan Assane Diouf Elimane Gning Assane Diouf Elimane Gning Elimane moo jël loxo ba teg ko ca bopp Assane Diouf faxas ñu taxawaat Elimane moo waroon ndomba Assane léegi Elimane Assane Diouf Elimane Assane Diouf mii nag bokkut ak Assane Diouf Baye Fall yegg si nañ bokkut ak Assane Diouf borom xorom yi kii Assane Diouf mbër bu ndaw. waaw oh non bu mag laay filmé. Ah, oh Assane Diouf Assane Diouf Elimane Assane Diouf leen bëri leen fële. góor ñaax laak e Lamine e laak kan guy gee ngoog ak ngóor ñaax loolu mooy première finale lese guy gi gànje guy gee ngoog guy gi bu gànja la wala guy gi bu gànjool en tout ngóor ñaax la Elimane ak Assane Diouf a nekk nii ngóor ñaax a nekk na le sumeel ma tuuti waaw cey sama cadre bi Assane Diouf jàpp na ñaari loxo ci ngemb mu ngi koy ëñ di ko teq tequm biti daa am tequm biir am tequm biti am kalu biir am kalu biti bu dee ngóor ñaax moom ak guy gi bu gànja ñu ngay jàppante final la fàq na ko guy geen koy fàq guy geen koy fàq guy geen koy fàq jogaat nañ ñoom ñaar diggante ngoor ñaax ak guy gi bu gànja fii Elimane ak Assane Diouf fi nekk final raw gàddu fële guy gi moo fa nekk ak ngoor ñaax final lese ñuy xaar final luur bi ñëw Assane wàcc na sukk benn bëtu ëmam jàpp benn ngemb lamb ka bëri feem Assane da <laughs> seen samay kele laa yor ay mbiic arbitre sifflé na diggante ak Elimane Gning arbitre àtte na leen final raw gàddu ba ngoog final lese be nekk na le guy gi bu ak ngóor ñaax foofu guy gi la góor ñaax final léger comme ni ma ko waxee sànq rek ci Elimane ak Assane ku daan ci final bi yow yaay premier mbër bi njëkk jël ci saison 2022 2023 góor ñaax góor ñaax góor ñaax guy gi góor ñaax guy gi góor ñaax guy gi góor ñaax guy gi góor ñaax guy gi hey ngóor bëre ngóor bëre na bërëc guy gi bëre na bërëc hey ñaari xale yi seen final mérito ko ngóor ñaax guy gi seen final mérito ko ngóor ñaax guy gi danil Assane Diouf ak Elimane Gningue final raw gàddu Ngor Ñaax ak Guy gi final laissé ndeysaan mu ngi noonu Assane ak Elimane Elimane Elimane daan na Assane Diouf Elimane ñi ngi daan na Assane Diouf maintenant c'est officiel saison 2022 2023 moom moo ci njëkk a jël final raw gaadu baa ngoog jeex na ngóor ñaaxa ca des